Macky 2012 fa mu tàmbalee dem moom mooy àgg ah moom mooy continuer di liggéey ak son excellence monsieur le président de la république Macky Sall moom mi nga xamante ne moom mooy président wu coalition yi. waaye am na loo xam ne tamit mënuñu ko ñàkk wax moom mooy Sénégal comme àdduna si wërngal képp dafa am loo xamante ni daf ko dund it te ñëpp dund ko muy. pandémie à la Covid-19 te pandémie bi am ay conséquences yoo xamante ni ñëpp xam nañ ko muy conséquence ci wàllu wér-gu-yaram mais conséquence ci wàllu économie ndax ñun ñi ñëpp ay acteurs de développement lañu donc loolu pandémie bi daf ko daf Sénégal daf ko yëg pandémie bi loolu xamante ni bi mu dalee Sénégal dafa am ñaar ñoo xamante ni son excellence monsieur le président de la république daf ko santaane bu njëkk bi moom mooy fexe jàppale ñi nga xamante ni dañu nekk ci wàllu économie bi te dëgëruñu ñu fexe ba jàppaleen ñu mën a taxaw moom mooy li ñu njëkk a def muy résilience bi beneen bi ci topp moom mooy su fekkee ni jàppale nañ leen ba ñu mën a taxaw léegi dañ leen di mën a jàppale ba ñu war a mën a tàmbale ba ñu war a dooraat ci seen activité yi loolu moom moo waral le PAP 2A te ci kaw noonu mu ko diglee daf ko diglee ñu ànd ceeg bar mooy maanaam ku doon dox ñu ne la nga waaxu ku doon waaxu ñu ne la nga nga gën a dëgëral say tànk ku nekkoon ci waaxu nag ñu ne la boo ko mënee dolli walla nga def lu ko raw nga def ko te loolu dañ ci njëkk a félicité gouvernement bi ak son excellence ndaxte ci lu néew fan yu néew rekk jàkkaarloo nañu ak taskati xibaar yi daa dee waxtaan ci li nga xamante ne fi mu toll ni mooy soxla askan wi te loolu dañ ci euh, féliciter son excellence ñoom ak gouvernement bi ci liggéey boo nga xam ne dañ ko def ci anam bu mucc ayib li ñu gën a yëkkati nag tey dafa bokk ci fas yéene wane wane askanu Sénégal ak askanu bitim réew li nga xamante ni moom la coalition Macky 2012 fas yéene ŋànk ci lu sorewul loo lu sorewul loolu muy ci wàllu liggéey ci wàllu liggéey boobu mag Macky coalition Macky 2012 daf ci am cër bu rëy ndax ñëpp xam nañ ni mooy coalition bi nga xamante ne moo porté woon président Macky sàll ba muy nekk ba ba mu nekk ba muy nekk président en 2012. waaye it nekkaat na coalition bi nga xamante ni ca 2019 liggéey na ci liggéey bu mucc ayib ba président de la république faluwaat nekk président. te loolu li tax tey jii Macky 2012 sawar ci ndaxte dañoo dégg ci suñuy nopp gis ci sunuy gët mu jàkkaarloog askan wi daa dee ne fal nañ ma 2012 waaye sama pay sama fal bii 2019 bokk na ci li ma gën a ñor te Macky 2012 delluwu ci gannaaw Macky 2012 dox na ci li mu ci waroon a dox Macky 2012 dox na ci lu mucc ayib donc tey jii loolu moo waral. tey jii dañu war a ànd ak président Macky Sall ànd ak moom jëmale Sénégal ca kanam ànd ak moom ba ci émergence su Sénégal coalition Macky 2012 maanaam du cop soppeekul su ma nee soppeekul mooy jëlewuñ fi li fi nekkoon waaye dañoo yeesal ak doxilin bu bees doxilin bu bees boobu moom moo di léegi nañuy liggéeyee lañu tàmbalee waxtaan ak nit ñi ak daa jël orientation yu bees moom mooy Macky 2012 dafa jël bàyyiwul nag la mu nekkee moom mooy nekk di ku mel ni kuy aar nekk bouclier loo xamante lu nar dal ci kaw président Macky Sall ci kawam lay dal ba pare doog koy doog balaa muy àgg ci moom kon ñun buñ ko misaalee ci xeer buy ñëw ci sunu kal kaw lay njëkk dal balaa muy àgg ci président donc ñun dañ koy aar bu ñu ko aaree dañuy fexe ba lépp loo xamante ni ñu ngi koy liggéey ci wàllu politique publique ñun ñu wisaare ko ci askan wi ndaxte nag son excellence président Macky Sall li mu def bëri na lool lool lool lool lool waaye xëj na na mu waree wàcc ci askan wi na ko askan wi waree yëg ak na ko askan wi waree dégg xëj na loolu moo des te Macky 2012 tey jii xar na tànk tuwéyam foqit ñun jigéen yi foqi nañu suñuy musóor ndax information yi mën a jàll fa mu àgg mën a àgg kon tey jii feuille de boobu ñu leen di wax mooy doxalin boobu moom la ñuy tàmbale te liñ ci njëkk a tàmbale muy lu ñu ñor te ñun ñi ñëpp ñu fekkee ko di ko dund mooy li xale yi di wax mbëkk mi wala ñu naan barsa wala Barsaq loolu am loolu solo ci ñun ndax fi mu toll nii ku ci amul doom bu ci ne am nga rakk bu ci ne mbaa am nga euh, mag bu ci nekk wala yow ci sa bopp sax xëj na yaa ngi jiixi jaaxa ndegam doo ci dem tey jii ñun dañ ci am luñ ci war a mën a wax ndax ñun ñii fi toog fii ñun ñëpp ay waajur lañu booy seet ëpp na xaaj bi ay woyjur lañu ñi fi neneen ñi fi nekk am nañu ay mag ak ay rakk te tey jii dañu toll foo xamante ni lu lu lu lu mère de famille walla lu père de famille bëgg ci xolam moom mooy di gis ay doomam ñuy dund ñun tey jii jigéen ñi sunu sunu mébét ak sunu yéene du gis sunuy doom ñu dem ci bitim réew du gis suñuy doom ñu naan ñu nax saay na ci océan Atlantique bi du toog ñu wooñu ne ñu say doom sa doom gisatuñ ko dundatul loolu defe naa ne njàqare la ci jigéen loolu njàqare la ci parent te ñun bëgguñu loolu looloo tax tey jii ñuy waxtaanee ak yéen ci pàcc bu njëkk bi ci ci sunu première activité ñuy waxtaaneek ak yéen euh, immigration boobu nga xamante ne moom la ci naam xale yi waaye yenn jigéen yi tàmbali di dem waaye nag liggéey bi du yem ci boobu pàcc dinañu jéem a seet yeneen daje yoo xam ne dañ ciy daje te fas yéene waxtaan lépp loo xamante ni moom mooy soxal soxla askan wi ndaxte bu fekkee ni da ngay xam soxla askan bi yow ci sa bopp waaye te demoo wàccoo ci askan bi waxtaan ak ñoom ñu mën la wax nii lañ ko gisee wala bu doon seen sago nii la soxla yooyu di demee defe naa ne duñ ko mën a laat ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk wër président de la république ñu mën a joyanti yenn politique yi te loolu coalition Macky 2012 fas yéene na ci fas yéene na ci taxaw taxaw bu mucc ayib dinañu aussi dem ci yenn gox yi goxaat yi parce que fi mu toll nii ñépp xam nañ ni sunu mbokk mool yi dañu am ay jafe-jafe feebar bu fi bu fi wàcc nit ñi kenn xamul fu mu jógee ñi ngi ciy def ay jéego pour xam waaye it yooyu tamit dina baax ñuy wàcc ci askan wi di waxtaan ak ñoom pour mën a xam lan nañ koy dundee ak naka lañ leen di massawu li leer ba leer moom moo di son excellence monsieur le président de la république amul benn benn benn soxla ci Sénégal bi lu dul sër bu xëyee gis ni population Sénégal ñoom ñi ngi ci jàmm seen nekkin mucc na ayib ku ci nekk ci li nga jàpp muy benn yaa ngi ciy mën a jàpp ci ñaar kookooy jaamu kooku moom mooy nekk ci jaamu soxla askan wi te ci loolu ñun coalition Macky 2012 ci loolu lañ ko fas yéene jàppale leneen li tamit moom mooy ñun doxalin bu bees bi ñu nekk newuñu ci yoonu di xarab newuñu ci yoonu di beddi newuñu ci yoonu di ŋàññi. ndax ñun sunu président muy président son excellence Macky Sall daf ñu jox tegtal ndaxte dafa xëy daa dee ibbi ay loxoom daa dee tàllal ay loxoom daa ne képp koo xam ne bëgg nga liggéey ngir Sénégal na nga ñëw wuy si ma parce que te defe naa ni appel ak wone yoon weesuwul loolu kon ñun newuñu ci beddi newuñu ci loolu yëpp ñi ngi tàllal sunuy loxo di ko ibbi di wax ni képp koo xamante ni liggéey senegal moo la ñor bëgg senegal jëm kanam moo la ñor dàquñu ku ñëw fajar ñu ku ñëw midi dàquñu ku ñëw gée dàquñu ku ñëw fajar ñépp lañu bëgg a boole ëmb boot ngir ànd ak son excellence le président Macky Sall ndax Sénégal jëm kanam ndax Sénégal jëm kanam ndaxte nag fi mu toll nii benn téere la ñu am benn téere la ñu am muy le plan Sénégal émergent moo ñuy won tegtal fa ñu jëm sur le plan social fa ñu jëm sur le plan économique te dafa def ni à l'horizon 2035 pour l'émergence ñu fas yéene jusqu'en 2035 pour l'émergence du Sénégal maa ngi leen di sant ku ci nekk di leen gërëm ci teewlu beeg déglu bi jërë ngeen jëf